yéwénante mooy nga bañ ngeen xuloo nga ne ko waaw tee ma def nangam ba jox la nangam rek te wax ji yem foofu loolu mooy yéwénante yéwénante mooy dagg xuloo bi rek loolu nag nee na buñ ko seetloo te nuñ ko defante yoon aayewu ko rek baax na waaye buñ ko seetloo dem aay ci yoon du baax mel ne dafa laaj jiiñ ne amel nga ko fukki diinaar yoo xam ne si weer wi dee nga ko war a jox kon xam nga loolu bor la boo ak sigut nga bëgg a yéenanteeg moom nag ci jox ko nangam ci xaalis fi saasay saasa te xam nga ne weer wi deexagut waaw loolu xam nga bu fekkoon nañ koo seet day mel ne wecc ko wul sa xaalis te lee teew lee bañ a teew loolu duñ ko delloo woon ci wàllu njaay ak wàllu weccante noonu lay mel lu mel noonu nañ koy aaye kon daal su ngeen mënee xëccoo coow nar a am bu ngeen may waxtaan ba juboo rek bu ngeen waxtaanee ba juboo rek baax na ci jeexal xuloo ko waaye nag mais anam goo xam ne bu ñu ko seetloo ci yoon du aay nee na mën na laa jiiñ nga nangu ba noppi te du tee nga wëlbatiku yéwénante moom mën na laa jiiñ nga weddi ba noppi wëlbatiku yéwénante moom waaye day wax na yéwénante googu kat dana jeexal xëccoo bi ci àdduna waaye li ca biir moom yàlla koy àttewaat bu ëllëgee ndax bu la nee amel nga ma ab junni nga bañ xuloo bi metti nga ne ko ah waaw téema laa jox juróomi téeméer yi ba téema laa jox téeméer bii te ñemale ko foofu rek su la wóoree ne ameeloo ko dara mu wóor ko ne moom ameeloo ko dara loolu koy jox araam na ci moom waru koo nangu dana dagal nii nag ci kanam àttekat bi ba xëccoo bi jeex ndax ndegam nangu nga ndax bañ ndax bañ xuloo am seen diggante nga joxe sa alal loolu yoon nangu na ko moom ndax ngeen bañ a xuloo waaye nag ci baatin moom moom ma may nangu du wër te nangu moom ma ngay lekk lu araam bu wane ne yooyu noonu te mën naa jeexal mbir ma fii ci àdduna ci saahir waaye nag bu dee ci wàllu baatin moom meneen mbir la lu yàlla seetaan la bu ëllëgee yooyu noonu te ga du tax mu mën a daganal la araamoon jamono yi taalif yi booba mbirum jaam dafa bari te tasaaroo mu ne nag bu fekkoon ne ab jaam bu jigéen daa dem ndax ak góor ne ko man kat góor laa ba kooko takk ko na ko kooko takk am ak moom doom sang ba ko moom luñ ñëw yem ca ne kii di sama jaam ñu topp ko mu wax dëgg dañ ko wax ne ko kon da ngay jël sa jaam doom ji nag moom góor la te bàyyi moo koy téye waaye na la fay xaymee doom ji dañuy seet doom ji li ak payam jox la ko nga yóbbaale moo yaay ji te nga bàyyi fi doom ji dagam dagam jébér di rek moo nax góor gi ne ko man gor laa ba mu takk ko doom jëm ci am moom mi ko takkoon gor lay doon doo ko mën a yóbbu waaye nag la fay xaymay doom ji nga yóbbaale nag yaay ji boole ci yey mooy nga fekk mbir ci loxo yi jaambur nga wax say lay ci yoon ba yoon la wax nga dëgg yaa moom bu ne tey nag boo fekkan ab jaam bu jigéen ci loxo yi jaambur te jaambur ba am naa moom doom te moom njublam jotuñu ko ci woon dañ ko koo jaayoon rek ci misaal mbaa dañ ko koo mayoon ak yu demee noonu waaye njublam jotuñu ko ci waaye yow nag ñëw nga wax ne yaa ko moom te biñ ko toppee yoon leen wax nga dëgg yaa moom. doo yóbbu jaam bu jigéen ba dañ lay fay xaymay jaam bu jigéen ba ak xaymay doom ja nga xam ne tey njëkk nga yóbbu waaye doo yóbbu jëmm ñu waxe tey doo yóbbu jébbeer ba doo yóbbu doom ja nga yóbbu xaymay jébbeer ba ak xaymay doom ja. am na ñu wax ne sañ naa jël jaam bu jigéen ba ñu fayaale ko xaymay doom ja te benn weesul moom daa waxoon ne du yóbbu jaam bu jigéen ba du yóbbu doom ja dañ koy fay rek xaymay yaar yépp jàppal nag ne wax ju jëkk joojee moom lañu sukkandikoo bi mu wax nii muy jël jaam bu jigéen ba ñu fayaale ko xaymay doom ja sukkandikoo wuñu ko ba ca topp itam mooy wax ne moom kat dañ koy jox rek xayma jaam bu jigéen bi waaye doom ji sax moom kenn du ko ci joxaale xayma te wax boobu dolli ca ne su fekkee ne it dañ koo daanoon rek nangu jébbéer bi ci moom ñëw jaay ko kii nga xam ne moom la nekk ci loxoom kon mën naa tànn moom mi moom tey ñu fay ko njëg nga xam ne moom la ko waa ji jaaye woon wala ñu seet xayma ja lu ko ci gënal rek yetti wax mi ngi foofu waaye jàppal wax bu njëkk ba moom lañu sukkandikoo koon ne nit dafa ëpp doole nit nangu ab jébéeram joteeg moom ba am ca doom bu ko yoon jàppee moom mi nangu jébéerub jaambur ba joteeg moom ba am ca doom dañ koy jiital ci sunu njaaloo ba noppi doom jëm ci am ñu boole ko yaay ja delloo boroom xam ne kon dana gis doomam ñu koy defub jaam du ca mën dara bu nit ne suuf si maa ko moom ñu topp ko ci yoon mu wax dëgg loolu mooy yeey fekk am na ku ca nekkoon koo xam ne njub la jotalee ko ca dañ ko koo jaayoon mbaa may mbaa doon yu demee noonu waaye moom daal moom mu ca nekkoon jot na caa def peen ni ki tabax na ci mbaa jëmbat na ci garab am ku ñu wax nag ba ne moo ko moom yoon topp ko ne ko wax nga dëgg li ñu def nag ñoom ñaar peen bi am na koo ci def mi tabax yi mbaa garab yi mbaa yaar yëpp sax te moom njub la jotalee ko ci woon kii itam topp na ko ci yoon ba yoon ne ko yaa ko moom mu ne kon dañuy wax ki moom suuf si ne ko fayal borom peen bi peenam ki nga fekkoon mu nekk ci te njublam bàyyiwu ko ci fay ko penam bu fi defee tabax fay ko xayma yi tabax yi bu fi defee garab noonu su ko defee nga boole ñaar yëpp daal di moom sa suuf ak peen bi ci nekkoon ndax léegi fay nga peen bi te yaa moom suuf si moom kon baax na suñ nee waa ji moom suuf si moom gu yees fayal peen bi moom yaar yëpp mu bañ dañu wax ka ci nekkoon ne ko yow fayal waa ji xaymay pàkk rek te yow moom yaar yëpp wax ne kon peen bi yaa ko ci def kon waa ji ndegam nangu wulaa remboursé sa peen yow fay ko xaymay pàkk bi rek mu daal di moom yaar yëpp su gàntoo moom itam nag su kenn ku ne gàntoo lañ la wax ki moom suuf si nanguwut a fay peen ba mu ci fekk dafa def peen ba nanguwut a nanguwut a fay xaymay suuf sax kon ñu leen yéen a ko bokk rek ci kenn ku ne nag wëlooru la nga am rek moom nga moom bu dee béréb boo xam ne seeraayu suuf sa ak seeraayu lañ def ci kaw ñoo yemoo képp kon ñoom ñaar ñoo yemoo ca xayma ja bu dee béréb boo xam ne suuf a gën a seer mel ne Touba suuf saa gën a seer la ca kaw mbaa Ndakaaru su boobaa kon borom suuf sa mooy ëppale ca xayma ja maanaam bu fekkee dañ ko fi ab jaamur ci misaal dañuy seet la cay bàyyi ko ñu koy seddoo ci kaw kenn ku ne wëlooru la nga moom niki bu dee fu mel ne Touba ak Dakar suuf sa mooy gën a seer ci xayma lañu tabax ci kaw kon su boobaa kon ka moom suuf sa moo war a ëppale ci loolee ñuy amee ci foofa bu dee kaw ga nag nga xam ne dañ faa tabax tabax bu mooy ëpp valeur da jëm suuf sa moom du ko tax am solo fu mel ne foofu it ka moom la ci kaw muy tabax ya moo war a ëppale ci lañuy jëlee foofa bu fekkoon ne nag ka tabax ci suuf sa baa mu jëmbat ci garab da ko nangoo woon ci jàmbur ci doole rek kon bu ko yoon di àtte da koy wax ne ko tëral tabax yi butti garab yi maasaliwaat suuf si ba mel na meloon ki wax ne ko rek léegi delloo suuf si borom na meloon rek benn yoon ki nga xam ne moom moo nekk suuf si ci kaw doole rek da ko nangoo woon ci jàmbur dala cee tabax mbaamu def cee garab yoon àtte ko ne ko da ngaa war a buddi garab yi te tabax yi delloo suuf si na meloon kooku nee na bu ko neexee mu bàyyi ca tabax ya bàyyi ca garab ya ñu xayma nag ku tojoon tabax ya ba mu daanu buti garab yi ba mu nekk la siit nu xayma jay toll rek borom suuf si jox ko lu toll noonu moom mi nga xam ne moo fa defoon tabax yi garab yi te xam nga moom daa war a buddi rek garab yi sànni war a tojee tabax yi mu daanu te gam loolu nag kon bu ko neexee mu tàyyi ci sonnante bàyyi fa tabax ya ak garab ya borom suuf si moom moom ko te mu bàyyi ko nag xaymay toj yi rek ak xaymay ak xaymay las it wala ñu buddi ba las ko waaye du ko fay nag xaymay tabax bu sotti mbaa garab yu sotti te kat buy seetloo ba ne xayma ci nangam la dañ ci génne ku ko doon dindiloo ab jaambur ñaata nga koy fay nit ki ñu ne ah moom kat bu bëggoon dindi tabax yi ba dellu paak bi nu war a mel faaw ñu wooy lu mel ne ab maçon faaw mooy toj tabax yi teqali seng yeeg nangam ak nangam kon danañ seet ñu doon woo ab jaambur muy def loolee ñaata lañ koy fay ñu génne ko ci nag ca xayma ja doole jox waa ji nag mooy ki amoon doole rek nangu yëfi jaambur dool ko fay nag la des ca xayma ja mel nañu ne waaw li fi nekk ci ay tabax ak ay garab ku tojoon tabax yi buddi garab yi las lu ñu defee ne moo di xaymaam waay ñu ne ah kon day des nañu war a am téeméeri junni ñu ne waaw bu fekkoon ne faaw dañ ñu wooyi nag koo xam ne moo koy toj ba noppi itam tagg garab yi toppale ko kooku li ñu defee ne moom lañ koy fay ñu ne ah kooku day faaw ñu fay ko ñaar fukki junni dañuy jàpp ne kon waaye ji nga xam ne moo ñëwoon ci suuf si ci doole daf fay tabax ak ci garab dañ koy jox rek juróom ñett fukki junni ndax da nga ma xayma yi lépp lépp bu tojoon ba daanu téeméeri junni la te koy faaw dañ ciy fay ka koy tojaka toppale ñaar fukki junni ko ñaar fukk génnee ci téeméeri junni juróom ñett fukk moo cee def loolu la ñuy jox kon waa ji dëng jooñee te kat nee na sax loo xam ne moom la muy baax baax buñ ko tojoon ba mu def tojit du amati xayma kenn du ko xaymawaale loolu nag mooy misaalum peinture peinture bu nekk tabax ba xam nga peinture moom mën naa seer waaye buñ tojoon tabax ba peinture bi du amati benn valeur loolu nag kon buñ dee seet xayma ja du ko ko jox duñ ko seetaale nee na ku ëpp doole nit nangu yëfam bis biñ la jàppee daal loo jëriñoo woon lu mu néew néew dañ lay wax nga delloo ko boroom ba tey ab sàcc mbaa ko siif yëfi jàmbur ñoo yemoo ci gox ci lu mel noonu képp koo xam ne rek ak njubla moo ko jotale ci loola bis bu ko yoon dee àtte da koy wax ne ko lépp loo si jëriñoo woon rek delloo ko boroom maanaam koo xam nag moom la ko jotale woon ca loola du njublam gannaaw ba lañ ko topp ci yoon rek bu war a génn ci loxoom waaye la ko jotale woon moom day lu mel ne jënd mbaa may mbaa doon mbaa yu demee noonu kooku ak njubla ngësale wu ca lam jot a jëriñoo moom moo ko moom kenn du ko topp naa ko da nga koy fay déedéet ku yoon jotee mu joxe jëmm ji rek lam jot a jëriñoo moo ko moom